biotox anti-moustique mooy aar mag ndaw ci bépp matu-matu yoo am na booy piis ci ak moustiquaire ak booy diw ci yaram moo leen di may seen journal de la santé daldi nag jàmm tey yem ak fukki fan ak ñeent ci weeru juin mooy bés bi nga xam ne ci la àdduna wérngal këpp jagleel may deret ñu ciy waxtaane sax ci yan anam la ñu mënee may deret docteur Saliou Diop jiite centre national de transfusion sanguine ñu teewlu ko ci jokkoom ak Abdoulaye Diop waaw ki mën a maye deret mooy euh, nit koo xam ni euh, ci mbirum ci ay say at toll na euh, lu gën a néew fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at waaw ci diggante fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at taamu nañ tamit ci maye deret mu am poids boo xam ni dina ëpp cinquante kilos. te amu ci tamit mu nekk koo xam ne daal yëgul ci boppam benn benn feebar de toute façon su ñëwee docteur bi d'abord pour nu pour s'assurer que ni amul benn benn gàllankoor ci euh, ci ci boo xam ni war na mun a mu mayee mu mayee deret voilà donc euh, condition yooyu daal la jël euh, pour permettre à ce que nit ñi mun a mayee deret léegi bu fekkee euh, góor la dina toog euh, ñetti weer bala moo mayewaat deret euh, bu fekkee jigéen la nag dina toog ñeenti weer avant que ñu koy autoriser moom bés bi nag nga xam ne mooy journée mondiale du don de sang dañu ko sabab ngir ñax ñi nga xam ne mësuñu may deret ñu faral di ko def te it ñi nga xam ne tàmm nañ ko def ñu wéy ci tànk yooyee ci at bi slogan bi nga xam ne moom la ñu tàmm ci bés bi mooy donner son sang un acte de solidarité rejoignez le mouvement et sauvez des vies maanaam may deret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 qui est âgé entre 18 euh, et 60 ans ici au Sénégal, euh, qui est en très bonne euh, santé. Ceci est attesté après une visite avec un médecin, va valider. c'est également une personne qui, a un poids au moins supérieur à 50 kg, hein, et 52 donc il faut au minimum de ce poids-là pour pouvoir donner du sang. et bien sûr, c'est une personne aussi euh, qui pendant euh, les trois derniers mois chez un homme n'a pas effectué de don de sang, donc le délai entre deux dons de sang chez un homme, c'est au minimum trois mois et au minimum quatre mois euh, si c'est une euh, femme. Voilà un peu les conditions. il est également préférable que quand on veut donner du sang, euh, qu'on prenne son petit déjeuner. Donc, euh, il ne faut pas être à contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes. Et après, il faut bien se reposer également avant le don Voilà un peu les conditions générales euh, pour effectuer un don de sang. Comme je l'ai dit tantôt, il faut un minimum de trois mois entre deux dons de sang chez l'homme et il faut un minimum de 4 mois en L'objectif de cette journée est de motiver les personnes qui donnent leur sang régulièrement à continuer de le faire et à inciter les personnes en bonne santé qui ne l'ont jamais fait à se lancer. Pour 2022, le slogan de la Journée mondiale du donneur de sang est Donner son sang, un acte de solidarité. Rejoignez le mouvement et sauvez des vies.